asalaamaaleykum asalaamaaleykum alaykoum wa rahmatullah euh, man suis Ousmane Dramé la conscience rek euh, pour yi euh, ndax à chaque fois bo xamé ni rek ay naxé dugg na ci bir askan wi dafa del de ci ubbi boppu xalé yi ba kenn ku ci nga xam orienté trop télévision yi trop trop trop une histoire confisquée notre histoire est confisquée par quelques familles euh, état Euh, jóg jàpp ci ànd ko ak ñoo xam ne ay arriviste lañ ànd ko ak ñoo xam ne ay géwél lañ ci la ñuy dund ànd ko ak ñoo xam ne ci lislaam ci la ñuy añ ci la ñuy reer ba lu mel noonu bu amee noonu waa réveiller conscience dañuy jóg jógul ci nag jógin woo xam ne ay kàddu ak i preuve ci lañ koy teg histoire du Sénégal dafa nekk lu yàgg histoire la boo xam ne dafa am su soqi ko histoire la boo xam ne kenn waru koo waxtaane ndax am lu ko fi jëkk histoire la boo xam ne dafa am fu mu sukkandiku ba tax na buñ wax dëgg daañu gëlëmal xale yi daañu gëlëm moo tax nun ñaare dañuy dab waxtaan yi bare bare bari waxtaan ci gëstu bi ci am ci lu wér door dil soit wax ko ni mu demee Sénégal sans la sous-région le Sénégal n'a pas d'histoire. Le Sénégal n'a pas d'histoire sans l'histoire de la sous-région. Bon, l'histoire au Sénégal, c'est le cœur qui est devenu le Sénégal. booy xool euh, ni nga le ne il la tëddee ñu dellu bu yàggoon bu yàgg bu ko tàmbalee empire du Ghana taxaw

ba boo xool soninke yi ci communauté bu nan la communauté jaaxanke cette communauté mom kep dans le monde entier dans le monde entier euh, mo fi nek 100% musulman 100% musulman kon ñooñu yàgg na ci lislaam ci lislaam lañ dëkk amuñu benen diiné budul islam kon ñooñu nga xamné ño ñoo empire du Ghana euh, wañu ko encore dellu taxawal l'empire du Mali jóge ci empire du Mali taxawal le Jolof Jolof jóg ba ngeen agsi ci Kajoor ak yeneen dëkk yi ndaw yi nga xam ne ñoo ko wër dama bëgg nu bokk waxante dëgg dix en douze ci lañ taxawal empire du Mali ci lañ taxawal empire du Mali muy daw ba seize Jolof door a taxaw te empire du Mali boobu ña ko taxawal ñoom Soundiata Keita ñoom Kanka Moussa ñooñu ay jullit lañ woon ñooñu nga xam ne seen capitale du Mali moo doon ñaani ñaani nekkul Sénégal ñaani ma ngi Guinée ca booru Sigiri ab dëkk moo dalu mu ne ci Sigiri foomoon capitale du Mali ñoom suma ngëru Kanté empire wasalu maanaam jaaxanke yi dañoo yàgg ci lislaam yàggeen woo xam ne amul wenn xeet wenn xeet bu nekk Afrique wu ñu tudd te jaaxanke jëkkule ci lislam kan boo ko waxante bari fen yi bari ne ma siècle 18e siècle li ay siècle la ay e siècle la len da fekk na l'islam bu baakha baakha bax du Mali surtout le sud du Sénégal vers la Casamance Casamance ak le Sénégal oriental ba bëggee dugg saalum ñoo ñoo jëkk ci lislaam ñoo fi yoroon ay daara commencé bëgg a sàkku xam-xam dañ naan la wutil Saloum wala ñu wutil Casamance wala wutil Sénégal oriental kan boo ko wante dëgg dëgg lislaam mi ngi tàmbali siiw dëgg Sénégal ginnaaw bu fédéré bu ñëwee taal daara yépp taxal beneen lislaam bu bees ci la l'islam bi tàmbalee nag dugg ñu di ko waxtaanee nii waaye ba muy tàng di tàng dëgg dëgg dëgg booba booy ma wolof yi xamuñu lislaam kan waxante dëgg te bàyyi jaayaate bi ak wax lu dul dëgg buñ seetee la jolof jolof bi nga xamee ne mi ngi taxaw nga xam ne euh, njaajaan njaay moo ko sanc euh, nga xam ne ñooñu ñoom itam ay ceddo lañu waaye ay jullit a ngi ci la ci ëpp sax jullit lañ ndax boo xool kër Njaajan Njaay paalin yooyu sant Fall daanaka ñooñu ñoo taxaw lislaam ci côté wolof yi ba daara yi nga xam ne sëñ Xaali Amar Fall moo ko ubbi woon en 603 daara ji mu ko mu université boo xam ne ginnaaw bu Tombouctou beneen magu ko fi ñooñu doo dégg mukk mukk mukk ñu la Xaali Amar Fall doo ko dégg

ñooñu it ay jaaxanke lañ waaw jaaxanke bu ngeen ko déggee mooy euh, ñi nga Guinée jaaxanke yi ña nga Mali jaaxanke yi ñi nga Guinée Bissau jaaxanke yi ñi fees del Casamance ak Sénégal oriental ba mu ne jaaxanke xam léegi dana soppi ko doon ni wolof ñu ci biir wolof yi kan bokk waxante dëgg te bàyyi jaayate bi histoire du Sénégal bi ñu jël nag yamale ko ci ñeenti famille ñeenti famille képp képp nañu moom diina yi xale yi dañ leen di nax du dëgg ñooñu seeni waajur bokku ñoo ñoom sax di bokku ñoom sax faf seeni waajur ñeneen lañ gëmoon leneen lañ doon werd lu bokk li seeni doom du werd tey te fekkoon na ñu ni ci biir lislaam ñoom kan bokk waxante dëgg naar bi nañ ko delloo xoromam le sud du damay rus bu ma déggee ñuy nettali té du di kenn kenn ñu tuddu ko ci ñom té ñi ni tëdd ñëpp ñu tudd salum dekk ñu fa dañ fa ñëwoon rek dañ fa jox ñëw fa ñu fa salum dama né jaaxanke ñoko samp ñoko taxawal tuddu ko seen bop salum salum soirée lay ngir yalla kan dellu honnête nit bu ko solal bu mu moomu nit bu ko solal bu mu moomul bo démé da nga la nga xam ne Thierno Alassane bal Abdou Kadir Kane Thierno Alassane bal Kane moo taxawal l'empire moo moo moo moo xeex la la révolution torodo samp un gouvernement samp constitution monter la démocratie ah monter bin équipe technocrate créer ay intellectuels ouvriers maanaam créer une société dynamique ba ni fi gaañoo manoon nañ ne doomu ma koy doon wala ab sëtam ma koy doon defuñu loolu de dana ana ki fi ëpp xam-xam askan bi xool ki fi ëpp xam-xam muy Abdou Karim Kane ñu ne ko kaay jiitu kon kan bokk honnête te nit ñi dëgg a ji neex na lool neex na lool ay koppar la oto yi neex na lool ay luxe la waaye def lañ seeni bopp ne seeni maam mosu koo soxla seeni maam mosu ko sol leen nan soxla woon waaye fii àdduna bi toll dama ne seytaane dugg na ci lislaami Sénégal ba toog ci digg bi nag di imposer la ko neex li Macky Sall def toroxal lislaam li Macky Sall def toroxal tarixa yi li Macky Sall def weddi tarixa yi taxawal leneen mu jëm ci franc-maçonnerie ak loolu ñu naan nouvelle ordre mondial lu doy waar la Macky pour mu rectifier sa faute dana jël trois cent million la jël jox ko télévision yi pour lan ñi nga xam ne ñoo tarixa yi te seeni sët nekk fi wala seeni doom il faut ñu delloo leen ci grade ba nekkoon ginnaaw ban tëjee jumaa yi tëj leen ci kër yi ay weer aay leen alxuraan ak lépp julli tout

waye seeni wajur aussi bax nañ te seeni wajur dafa am fuñu ñu jàppondoon ma ngi bax ñi baax nañ waye yakane seeni wajur ñu bax lañ te seeni wajur japp ñu won ci ñom ci ñeneen lañ jappon kan bu ko xanté deug suma nguru kante tanka musa samuri Touré maninka yëpp susu yëpp soninke yëpp lampil mandañ la wasalu ñëpp dooni julit jëkk fee kabar jëkk fee tudd yàlla ñu wetti leen sànni ca àll ba indi histoire yoo xam ne dix-huitième la xew li màkki bëggit noonu la ku tooñ balu tooñ na Comme lu muy def il faut mu jël l'islam am këriñ ko moomale te l'islam yàlla képp ko moom buñ onetul dee sawara dama ne la solal ko la jolof ndeysaan en 1549, en 1549, la bataille de Danki Amari Ngoone Sobel Lamane ci Foundiogou Lele Fuli fak diggante bobu fofu la Kajoor juddoo Amari Ngoone Sobel Fall songu baay bi ne ko oh père pourquoi acceptez-vous si facilement cette corvée transporter du sable, je suis dans le Djolof le Bourba. Le Bourba est-il donc de plus naissance que toi non, mon fils Amari, le Bourba est puissant et son peuple est derrière lui. ne me dis pas cela surtout, ne me dis pas cela surtout. Un homme doit pouvoir se combattre et révolter et mourir dans l'honneur. Aïe, ainsi donc, va jouer notre casse la tête su ko defee passé demal nga il yi passe, ak yi xewoon bu ko def problème am naa lu mu wér lu mu wér qui da nga bi yekati jass ci tek ci loxo bi Xal bi keuf jass incident ainsi donc j'agirai avec la bénédiction de mon père peuple du Kayor peuple du Kayor je pars pour tuer ou pour être tué car je veux recouvrir l'indépendance du Kayor Amadou Ngoné Sobel Fall ab jullit la tudd leen ko lu sox ko ci moom ñu ne Xaali Amar Fall moo tabaxoon université bi ci piir moom la feder bu rey tasaare daara ja samp jeneen diine ju bokkut ak lislaam boobu te ci la ñu nekk moo tax Macron ñëw Sénégal ne diine ja sa maam ak seen maam dina joju gën di doxal Macky Sall ñew deggal ko ne won ci réew mi beneen bul diiné bi nga xamné ne fi tubaab bi bawon kan delu ci bop. bopp amoon goone sobel fal ne ko bàyyi mu naa mu mutuma muñ biñ waari soufi su ndey di yanu

ba nii la demee ba éliminer ko ñibbi si taxawal kajoor samp ab teen ca bawol loolu lépp xel yi dañ ko war a xam boobu mag ñu baax ñi ngeen tudd anañu anañu ba ko ab sëtam tey ab sëtëm wala soqi koo ci moom moo samp université bi nekkoon Pire ñoo na Xaali Amar Fall ngeen lànk bañ koo tudd bu nu wàccee dellu ci axe bi ñom Moussa Molo ña nga fa won dans le sud ñu oriental gi tay Amadou Lamine Dramé ma nga fa won saf-sap Amadou Lamine Dramé ku téla a alcorane dem ba nit rawuma nit rawuma fi dem makka am fa juromi am fa fukki at la Moyen-Orient fukk ma ko passé Makka don fa imam di fa jàngale alxuraan dem ba ab xex am fa xeex booba tan turki mo géré Makka ci ab sénégalais ab sénégalais ñu japp ko yobbu ko turki mettre ko en prison pendant 5 ans juróomi at bo anam ak ñu bax ñi tur fu nekkon ken xamulen leen sax ci jamono Amadou Lamine di juromi at prison turki ba muy ñibbisi ba muy ñibbisi ay ciogali naara ko top and ak moom ñew ñono ba delu wuñu seeni bambe la nga senegal ko kenn ko tuddu koku moy ñew dans le senegal oriental lok tuba bi ne ko dama bëgg abal ma rew mi te la ma damay créer ben état état lay créer mo Lamine loolu def ci Guinée dag ci Mali dag ci euh, euh, Guinée Bissau ngabu dag ci Mauritanie ak Sénégal ak Gambie taxol ben état islamique moko ko wa état islamique ut ben armée songu touba pendant 7 ans muy dur touba bi bal touba bi ko dori bal mag ñu bax ñi ngi di tuddu amul kenn ci ñoko mesure ak fetal ko touba bi amul wax leen xale li tuba bi bëgg ñi nga xamne ne ñoo doon wé ci waawam moom la tuba bi jël tek liñ ci seen kanam ñi nga xamne jotto nak tuba bi dóorante ak tuba bi ay bal ñu fop histoire bi sul leen bokkatuñu il faut dire la vérité deug bu amul rek jamm du mëna am deug bu amul xalé yi dañoo mën leen toog ci ab banki wëru wuñu wax leen xale yi deug mag ñu baax ñi fi nek mag ñu baax lañ kenn wu ko waaye ñi leen jiitut mag ñu baax lañ l'empire jaaxanke am na ñeenti dëkk yu tudd Touba umut Lamine ma nga daano Touba Kuta Touba bi ci Guinée Touba bi nekk euh, Ngaabu ak Touba bi nga xam ne moo Abidjan ak Touba Sénégal bi te booba yooye Touba wan koy samp defe naa ne booba yàgg na ndax lu gatt gatt touba yoyu magé nañ touba mbàkke lopp téméré at ko wax rek tu as dit un crime kenn délu honnête délu djubal sëriñ touba dafa amoon relation ak suninké yi ak suninké yi ak jaxanké kon poñetum aduna ni ak mercedes yi ak auto yi ak geweli tay yi géwéli tey yi bu mutax ngeen wax lo xamne euleuk ku ci jakkalu ma mawdu seug ndax kat ñu amul Lamine Dramé te ñom Moussa mo la ñu ngi dégg ñep ba Thierno Alassane bal ñom ñep weeru Tijaan ak bu xadiré dañ ko doon distribuer kan boo ko honnête te wax xale yi dëgg te mooy Macky Sall ak ñu ordre mondialam bii xale yi nekk TFM histoire zéro diine zéro dégg ñu alxuraan nasaraan sax dégguñu ko kon nu mel noonu waruñu leen di jël ñu ne ay lantinoor yoo xam ne ñu war a alimenter askan wi xale yi lànk leen bu leen kenn nax ten dellu kenn ku ne fa nga jàpp jàpp fa te jaamu yàlla nañ la ko sante na ko sa ka nga yaakaar di defe defe ko noonu te compétition bii bu leen ci dugg lu Macky sàll yàq moom lay jéem a defaraat la tax gëmu ko ba yàq ko moo tax mënu koo defar kon maa ngi jéggul te ñaan jàmm man la Ousmane Dramé bu la réveillé des consciences